en première ligue russe donc aujourd'hui le football ak ñi nga xamante ne malgré dañ ko dor donc 3 bis à 2 ko dor ki nga xamantene moy jawbal da kay te man nañu wax buteur malheureux parce que dougal na ci bi le match donc mu nek bi bo xamantene man nañu wax day confirmer confiance bi nga xamantene jawbal da kay te ming ci donc man nañu wax il est en feu actuellement depuis bi mu ñëwaaté ci ci ci ci projet et tout donc ñëw leen ngeen wax ñu nan ngeen gisé prestation bu kay balla jawa ak nan ngeen gisé retouram wé leen di like di commenter ak partager ja ngeen jëf